mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu yéen ñi bàyyi TV seen télévision internationale émettre fii nga xam ne moo di Mbawor ci département bu Kébémer tey nag nekk Daara Jolof sëriñ bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. mu na nga tudd. Abdoulaye Ndiaye. dëkk fii ci fan. dëkk fii ci Daara Jolof. ah sa doom dafa réer. waaw sama doom dafa réer. fan la nekkoon moom. ngi nekkoon dëkk bu ñuy wax Kaolack. ci biir Kaolack wala. wa bir kawlax la daara yi eh, Medina Medina Baye. Mhm. Medina Baba Medina Baba la nek Medina Baba ci bir Kaolack. wa ci bir Kaolack. mom mhm. nu tuddu daara yi seigne Modou ñang mi ngi tuddu Ablaye sar mhm. Ablaye sar lañ ci eh, la tuddu ñu gën ko xam ci Abdoulaye ndjay waaw sama trondo trondo mi ngi Dakar. mom la ko tuddee. mom ñaata at la waram mom mi ngi juddu 2006. par na am fukki at ak juróom-ñaar ren. ci 2024 bi. waaw léegi moom ndax boobu rek la jëkk a daw. waaw njëkkoon naa daw nag waaye booba mi ngi nekkoon buur ba mu demee. ci daara kan. Cees lañ ko ci daara yi kii. Abdoulaye Mbengue. Mhm. daara yi Abdoulaye Mbengue. Mhm. foofu njëkkoon a dawee. Mhm. moom dafa xees wala dafa ñuul wala. Mm, ku ñuul la di ku ndaw. dafa njool wala dafa gàtt. waaw nekk diggu doomu la nag. ñoo wut noonu waaye gàttut. am na yaram wala amul yaram. amul yaram waaw daañu jël si waat yow salaamaaleykum soxna si. waaleykum salaam maa ngi lay nuyu di la maa lay delloo na nga tudd. Maxo laa tudd. Maxo Ndiaye dëkk Daara Jolof. dëkk Daara Jolof yow yaay yaayu xale bi. waaye yaayu Ablaye Ndiaye. yow. gën koo xam ci Ablaye Sarr. Mhm. waaw moom euh, papaam daf ko yóbbu woon Daara. Ah, papaam da ko yóbbu woon sa Daara ja. Mhm. ngir sàkku xam-xam. Mhm. mu toog fa. ba am fa ay at. ba wàcc la alxuraan. day ba wàcce alxuraan. Mhm. papaam jóge daara na da koy jëli. Mhm. ba mu demee suur bu demee. Mhm. ndax sëriñ ba ne ko. yow de taalib bi ni wax Ablaay daara. daw na. mu ne ah loolu nag loo si xam. mu ne ko daw na de. waaye boobaak léegi. mën na at. ak genn wàll. ci deux mille waaw deux mille vingt quatre bi ah, ndax xamoon nga ci moom xale bu të wala boo xam ne nangu la jàng wala lan la. moom kay ba mu ñëwee daf na woon man jàng bëgg naa ko. waaye su may jàng fii laay jàngee. papaam na ko naa la yóbbu ci beneen daa xam dafa të rek xam nga danaa def bu fan yi mu fi nekkee danaa def chaque jour ñu koy àkk si papaam ne xaaral ma yóbbu ko feneen ba wàcc alxuraan ma ne ko alool de baax na moom ko yóbboo nag mu toog ay at ba wàcc alxuraan nag ci la doog a dawee nag loolu la waaw waaye ndax sëñ Ablaye ban numéro mooy numéro bi xam ne ko da nga jot sa numéro waaw numéro bi nga xam ne ba ma jot ko jot ma ji mooy 77 565 91. 84. notre numéro. 77. 327. 86. 30. koo gis mën na ko yóbbuwaat ca Daara ji wala mu indi ko fii ci Daara Jolof fon nga dëkk ci Daara Jolof. Daara Jolof maa ngi dëkk quartier euh, Lumbal Daara. Lumbal Daara. waaw ci fan ci Lumbal Daara. quartier bu ñuy wax Ngëda Neen. Mhm. kon daal képp ko gis nga indi ko fii wala nga yóbbu ko gendarmerie bu la jege wala police bu la jege waaw kon euh, nga fàttali daara bi mu nekkoon daara sëñ Modou Niang la nekkoon ci mhm. Kaolack ca Kaolack kon nag képp koo xam ne gis nga ko rek euh, mën nga ko indi ci daara jooju wala nga euh, dem fi nga xam ne tabaarakallaa moo di Mbadiar TV nga 76 751 111 45 bu dee da ngaa nekk Louga mën nga dem RTS bu Louga nga laajte mbay Ndiaye bu Mbadiar Euh, tabarakallahu di baayam di nijaayam kon nag képp ko gis rek ñu ngi sàkku ci kon nag yàlla na yàlla defal la jàmmi àdduna ak jàmmi alaaxira jërë ngeen jëf Mbadiar TV Mbadiar seet seen YouTube bi xew ci jamono bàyyi ko fi ci mbawoor yow mi am gàmm màggal wala ziyaar nga bëgg àdduna bépp yëg ko seetaan la directement woote 76 751 71 45 Madiar TV daal ci kaw ca kanam abonné te bés cloche bi ngir mën a am lépp vidéo bu jàll ci Madiar TV 76 la 751 71 45 Madiar TV daal kaw ca kanam.